ci logique gu confisquer le pouvoir Macky Sall euh, xalaatul woon dem léegi pousse na élection yi ba ba fu mu mën te ba léegi nit ñi sax ñu ngi am xel ñaar ndax le 24 élection dina am wala ndax élection bu amee sax ndax dana jaar yoon ndax kenn du ko sabote ndax kenn du sabote scrutin bi yooyu yëpp ñu ngi ci toll te ñun mosuñu xam loolu Sénégal lu mu metti waan metti metti metti danañ dem élection mhm. même contestation bu doon am contestation post électorale la doon am après résultat yi lañ naan dañu sàcc te système bi léegi loolu daf fiy jafe mais nga toog ni aj naa ay élection non loolu mus fi am. mais président Macky Sall dissoudre gouvernement am créé waat beneen gouvernement bi nga gisee gouvernement bi mu bu bees bi mu créé ban jàngat nga ci am. non gouvernement bu bees bi daal ñu bëri dañ leen di conduire seen poste. Mhm. parce que trois semaines moo leen fi dese de. trois semaines waaw le 2 avril. Mhm. Mhm. moo leen fi dese. donc li ñu doon xool mooy ministère de l'intérieur ndax nañ fa teg tuddee njaaxaanaay mais Matar Cissé fa indil. Mhm. donc euh, amul changement bu extraordinaire parce que ministre de l' intérieur bi da nga fa jëlee def ko premier ministre euh, jël Matar def ko euh, ministre de l' intérieur. Mhm. da nga leen permuter rek. donc amul changement yu bëri. mais ñuy wax ne personne neutre moo waroon a organiser ay élections mais Matar bi y des gens ban jàngat ngay am ci moom. non Matar Cissé il milite à au Waalo. donc euh, ci fiefu Omar Sarr moom adversaire u Omar Sarr la woon léegi ñoo bokk mouvance donc euh, moom ak Amadou Mame Diop mm-hmm. ñoom ñëpp euh, c'est des militants du Waalo donc foofu mooy seen fief donc c'est quelqu'un qui est engagé politiquement te pourtant c'est un inspecteur général d'État boo xam ni waroon na mën a am neutralité parce que au début c'était une personne neutre il a été directeur général des douanes mm-hmm. un directeur général des douanes kenn xamu xameewu ko politique mais ba mu nekkee directeur de cabinet Macky Sall ba léegi dafa engagé wu en politique après nekkoon na ministre aussi mm-hmm. euh, et avant ça jox nañ ko mission Sénélec après ñu def jox ko jox ko ministère de l'énergie euh, léegi euh, mu nekkaat encore directeur de euh, ministre de l'intérieur plutôt mm-hmm. donc moom euh, kenn ci élément suru Macky Sall yi la ah bon ah oui nitu Macky Sall la kooku kooku kooku c'est un c'est un c'est un va en guerre parce que xam nañ ko daal ci engagement politique am kooku moo nekk tey ministre de l'intérieur te ñun ñu ngi doon séntu koo xam ni gën na gën na neutre que Matar Cissé. am nga ci confiance yow. non mënuma ci am confiance parce que gis nañu Thiendella euh, Fall. Mhm. on l'a on l'a on l'a relevé. Mhm. ni mu comporté woo par rapport à une décision de justice. Mhm. Euh, gis ngeen euh, nu mu tuddati euh, Aly Ngouille Ndiaye mhm. di yooxu naan dañu changé ay préfet ki sous préfet yoo xam ni moom la ñu àndal mhm. le fait que ay sous préfet ki mën a ànd ak benn candidat rek ça pose problème parce que déclaration boobu Aly Ngouille Ndiaye mu ko def bi Macky jëlee benn décret def ay mutation ci commandement territorial te mhm. ñooñu ñooy superviser élection yi ci gox-goxaan yi ci département yi donc confiance ñu ngi koy mën a am lu dul ñu indil ñu un directeur général des élections boo xam ni une personnalité neutre la. Mm-hmm. ak Sénat boo xam ni amul membre APR. parce que président Macky Sall dafa dugal ci biir Sénat un membre te loolu texte ak charte Sénat mayewu ko Sénat commission électorale nationale autonome mayewu ko donc ñun du ñu am confiance dañu nekk tout le temps sur nos gardes. Mm-hmm. surtout que conseil constitutionnel nee am na plus de personnes yoo xam ni nekkuñu ci fichier bi. te fichier bi ba léegi gisaguñ ko. Mhm. donc euh, loolu confiance mënu ko ci am. Mhm. mais ñiy wax ne gouvernement bi ñi gën a jege. Mhm. Euh, Amadou Ba dañ leen ci génnee mën naa ci lim peut-être Lat Diop. ak ñeneen ak ñeneen. Euh, ba tey sax am na benn journal bu bind ne est-ce que Macky Sall vraiment que Amadou Ba gagne ses élections est-ce que ñooñu da nga leen di jox crédit. waaw dama leen di jox crédit parce Euh, ñëpp xam nañ ni quand même du secret qu'il y a une crise xeex bi mujj rek moo koy wane au siège de l'APR entre pro Amadou Ba et anti Amadou Ba. ah bon ah amul ah yow tamit gis ngeen Mambey ñaa jël publiquement parole ni moom àndul ak Amadou Ba soutenir ko. Mhm. gis ngeen yeneen responsable wax ko gis ngeen Souleymane Jules Diop wax ko gis ngeen ñu bari wax ni ñoom ànduñu ak Amadou Ba loolu amul ah bon. Mhm. c'est pas une surprise tous les Sénégalais le savent ñëpp xam nañ ko. mais naka nga mën a amee sa premier ministre nekk candidat à l' élection présidentielle. Mmh. tu prêtes ton groupe parlementaire pour ñu accuser ko de corruption ci benn commission d' enquête pour mu ñëw leeral alors que yow dàqoo ko sax te nee nga moom mooy sa candidat mais sa ay député ñoo ko mal corrupteur ba noppi dàqoo ko mais booy def gouvernement ba génnee ko kay. mais dañuy njort ni neexoowu leen rek et puis Amadou Ba ci dialogue national bi dafa yedd Macky Sall. Ah ba mu jëlee parole. Mm. daf ko ni respect des institutions et organisation des élections à bonne date déggoo ko. dégg naa ko j'ai bien suivi. bi mu naan Macky le respect des institutions et l'organisation des élections à bonne date parce que moom la mu nekk ci liste bi moo tax gars yi bëgg daj liste bi moo ko moo moo ko sécuriser en fait parce que noo ñu génneel ko dossier bu ko yóbbu kaso mais un candidat à l'élection présidentielle ne peut être poursuivi. en justice kon moom loolu moo ko sécuriser fi mu nekk moo tax il est pour l'organisation des élections à bonne date et le respect des institutions kon Macky Sall président Macky Sall bu nekkee day day jëfee décision au conseil constitutionnel muy commencer delloo institution bi seen respect lui qui avait juré de veiller euh, de garantir le bon mmh. fonctionnement des institutions ba muy prêter serment bokk na woon ci waatam mais gis nañu ni mu fragiliser conseil constitutionnel ba ñuy xalaat sax ndax est-ce que duñ ko fi teggi teg mm-hmm. cour constitutionnel mm-hmm. donc débat boobu yëpp mu ngi fi mm-hmm. accuser ay nit de corruption te tegoo dara ci table bi gis naa benn audio bu six secondes bu ñu génnee ci Amadou Ba boo xam ne dara leeruma ci mais loolu ba léegi gisuma ci ay benn preuve de corruption gisuma ci waxu xaalis amul dara donc ñoom bu ñu amee dara nañ ko teg ci table bi li leer mooy Amadou Ba il ne fait pas l'unanimité au mais pourquoi moom mi ñu moom mi ñu accusé il n'a pas osé peut-être démissionner wala ne nañu leeral nangam wala toog moom mu toog rek ba léegi yeeyu ci yàbbiwu ci waxu ci defu ci dara toog. ba démb ñu changé ko jël jëlee ko ci poste premier ministre. mais mais ni mu def noonu la. ah waaw parce que il faut ñoom ñu taqal ci seen loxo. il faut que ñoom ñu assumer seen responsabilité parce que yow boo nee sama premier ministre kat dañ ko jiiñ corruption. mais la conséquence mooy nga démettre ko au moins moom bu démissionné wul yow nga démettre ko ba ñu leeral loolu mais yow ñemewoo ko démettre ba noppi nga jël sa groupe parlementaire pour ñu monteel ko commission d' enquête te nee nga nañ ko jàppale loolu est ce que jàppale sa candidat la dofuñu ça ne va pas c' est une guerre c' est une guerre ouverte boo xam ni dafa dem ba ci conseil constitutionnel état bi dafa taxaw jàmbaarloo conseil constitutionnel jàmbaarloo Amadou Amadou Ba il a la la main la l'administration la haute administration il a de l'argent te il a des réseaux surtout dans le monde médiatique dans la communication digitale il a il est très réseauté kon kooku booy xeex ak moom moom dafay may tekk bi rek donc di liggéey ci suuf li muy liggéey donc mhm. euh, c'est de bonne guerre Mhm. c'est de c'est de bonne guerre je vous rappelle que vous êtes sur 313 euh, euh, digital bu ngeen di seetaan ba ci yàgg n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos cloches de de notification rendez-vous bi nag samedi bu